waaw ndam la parce que soo seetee boppam xam dara raw te bu ñu ñëwee ci man trois jours bi dara hmm, métti

toogaay daal bi nga xam ne nga croiser les bras wala nga banque say loxo te doo def dara ñëpp ci doon liggéey ñëpp amul ku ci du ci lañ doon yendu ci lañ doon fanaan ba yàlla teggi ko fii euh, ci jàmm ak salaam kaa euh, bi wér kon mun nañu wax ne que guerre la woon kon lii aussi ndam la soo seetee aussi àdduna euh, bi yëpp muy doon xool Sénégal naka lay def ba génn ci yàlla jàppale ñu ba ñu génn ci kon mun nañu wax ne que ndam la

si lumière bi tamit ma sha allah vraiment amul dara lo xamne ñu koy ñu ngi koy tuumaal adama si liggéey bu mu def xale la te vision bi mu am parce que lo tamit dafa am solo mbir xew rek ga jóg nga ne waa kii naa si wax lolu am solo la écrivain tamit non la da ngay gis ben tubaab bo xam ne dañuy toog gis ben mbir rek bind ko ñu ne ah be xarañ waye adama nak xarañ na amna na xalaat am xel wax na que lii daf koy fàttali doomu aadama yi te gis ngeen Ebola actuellement en RDC mu ngi fa amati kon ministère de la santé gis nañ taxawaay bu mu taxaw le président de la République gis nañ taxaw bu mu taxaw kon nag yaakaar naa ñun en tant que Sénégal lii moo nu war te dinaa jox benn firnde léegi rek fan yi démb rek la ñu am benn autorisation bu ko accordé ay japonais du ñu jógee ba Japon ñëw Sénégal pour lan xool match bi nga xam moo war a xew diggante Sénégal ak Japon pour ñu couvrir ko automatiquement bu nga xam ne Sénégal Japon ñom ñoo rejouer rek du ñu daw ci Sénégal équipe baa fi fii jox nañ autorisation légui réaction Sénégal lañuy xol le dimanche xol leen xereñ boobu mais nak loolu dafa laaj moyen dafa laaj xaliss dafa laaj xam-xam so amé xam-xam té am moy do dem Adama am nga xam-xam waaye euh, ministre de la culture le euh, la direction nationale amna xaliss so ñëwé su du gisee li jaar na yoon mi nga xam ne wareef na mu porte ko si public so soo ñëwee incha allah dina la jappalé waaw film bi moom yombuloon wax dëgg nag yombuloon parce que depuis août 2014 ba kaaw Ebola bi ñëw fii Sénégal si laa commencé woon doon tourner ba ma xoolee ba xalaat ma xam ni gisuma kenn ko xam ne wax na ma mu ngi waaj a tourner si effet documentaire wala bàyyiwuma si xel mu nga xam ne le am na kenn ku koy tourner ma ne pourquoi pas nit ñi ñi ngi gis côté négatif ah, Ebola parce que Ebola bu mu amee fii Sénégal ñu bëree bëri dañu doon daw Ebola. Je suis man si quelque chose de positif quelque chose de positif je suis dès si un film bu nga xam nit si parce que moi, mais man comment xam je suis un caméraman et que depuis ba ma commencé liggéey télé télé jënd caméra bopp sama caméra la ko ah, matériel bob, la la film ba pare nak am sama ginnaw ben équipe technique bo xamna la parce que wa wax nga deug ah, lolou dama ko xone fatte tax même si tuba bi film bi beug na mu am suite manam moy après 4 ans def nañ film bi 13 ah, minutes mais beug na xam xale ah, bu amone ebola nan la mujjé leg lan lay def fan la nek mu meuna xam Ah, yan jàngat la si jële ba mu amee Ebola gi te dégg naa ñu ne papaam ak yaayam gaañu na si affaire Ebola léegi moom lan la lan la doon bëggoon naa ko xam mais loolu dafa il faut mu laaj mooy